mooy fi nga wax ne as a country and people what do we gain from rejecting the 2024 draft constitution when it could be amended by parliament. simple question right um, luwaa yu fi jaar parliament bari nañ because process bu ñu jël luwaa boobu noonu foog mu constitution bi unfortunately foog mu dem through parliament boobu noonu process lañ jël léegi su ko daaxee lan lañ oh ok baro li la bëggoon daaxa nañ ko waaye daaxa nañ ko yow loo si jàpp si jàpp. te bu boobaay ñu fi nekk di jooy time limit doo fi am time limit ñu fi nekk di jooy independent institution doo ko fi am moo executive powers baro su ko neexee mu toog fi ni million years loi boobu noonu moo la ko jox parce que kon àngale nu mu ko waxee rek loo su not be seen to be non existent loi loi la te loi boobu noonu mooy dox 1997 mooy dox yow su looy attaque baro da nga koy attaque in morality te political morality fi ni Gambia excuse me but naka tudd pdos dañ gis ne ñu fi gëna am bobu nonu integrity political integrity ya nga wono stan so lolu dafa nek li nga xamantene ñun sun politiciens ni affaire la ya, so loi bi nak loi la nit ñi indi sent pour loi bi ñu mën ko togg mu baax nañ togg nañ xol loi bi ni defaral duwaay ba mu baax. ñu ñu mun si am constitution bi nga xam ne moom la ñu leen gis te nit ñi ñaa ngi naan nag